rabbi israh li sadri waysir li amri waxlul xoqadatan min lisaani yafqahu qawli sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasil baraay mbokki lu xew tv ngeen ñëwaat seen ñetteelu épisode ci seen waxtaanu koor gi ngeen di ànd ak seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw koor gi nga xam ni yàlla nee na moo koy fayal boppam nekk weer woo xam ne weeru tedd la wax naa leen ne alxuraanu karim ci weer wi la ko yàlla wàcc kon nekk na weer woo xam ni képp koo xam ni fekkee nga ko loo ci jàmm yàlla waroo koo naw ndax bu la yàlla fayee nga gis ni loo mënoon a jëf danga ko xeeb nga xam ni weeru koor bari na njariñ loo xamante ni yi ci nekk ndax it guddi gi nga xam ne moo gën juróom-ñett fukki ak ñeent di bisu laylatu xadri ci guddi gi ci weeru koor la nekk nga xam ne laylatu xadri xayr min alfi sahri weeru koor woowu nag nga xamante ni yàllaa ko terelee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa te lool ku dib jullit faaw nga war a am gis-gis bu njëkk ci weeru koor ni yàllaa ko terelee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag bu la teralee teraanga waroo tëdd rek nelaw déedéet danga naan afala akuna abdan sakuran danga war a nekk ku reconnaissance diggante yàlla mooy nga sant ko lan mooy sant gi fexe ba weeru koor wi bëccëg gu ne buy dem yóbbaale sa yiw guddi gu ne buy dem yóbbaale sa yiw waaye bu ko def woor woo xam ni moom wooru njaaye ne njóobee ni tëdd huit heures yeewu dix-sept heures boo yeewoo di heures sangu toog ci kanamu télé bi seetaan ay série caaxaan ndogg jot na loolu budul koor sax daganut rawatina nag kon ci weeru koor kon koor buñ la ko waxee mooy nga sàmmonteeg jóg suba julli ko ca waxtu wa ndax waxtu wa mooy waxtu xëdd te xëdd dafa bokk ci koor sunna la ci nga xamante ni bokk na ci koor gi loo man ci jàng alxuraan karim nga di ko def ndax moom alxuraan karim moom jullit war naa jomba toog bisub lëmm te ibbu ci donte benn saar la nga jàng ko ndax faqaraw maa tayassara mina alxuraan la yàlla wax jàngal di jàppandi ci yow donte benn faatiha nga man assurel faatiha boobu ni moom daal dinaa ko jàng saa su nekk rawatina nag ci weeru koor waaye nga xam ni koor gi bu jotee bëccëg gi yaa ngi nelaw boo nelawul yaa ngi lido soo lidowul am na ñoo xam sax ci biir koor gi dañuy kart te loolu dafa araam dafa araam namal xamr wal maysir wal ansaab rijsun min seytaan seytaan fajtani bu yàlla nee na daw leen ko xeeti lido yeeg carte yeeg jeunes yi ñenn dem di meeweeg yëpp ak koor daal àndut moo tax koor daal li mu àndal mooy profito profito ci lan ci jaamu yàlla profito ci lan ci ay naafila profito ci ay naafila naafila nag dafa yaatu ndax Sénégal bu ne naafila rek xel yi dem ci julli julli naafila naafila la waaye naafila dafa bari yàlla ci boobu jox la alal nga tane nit ñi sa alal jooju mën nga caa naafila mooy di ci dimbalee ña yàlla su borom may la alal nga gis koo xam ne ña nga tëdd sax ca kaso ya te te bor rek dugal leen fa nga ne ba ca ña nga xam ne ñoo jàpp ñooña ni képp koo xamante ni daa a yoreel bor nit te bor ba toll nii kéem na sa doole toll nga fayal ko mu génn jaamu yàlla la ndax am na américain boo xam ne gëmul sunu borom waaye bi bisu anniversaire am jotee daa dem ci ab kaso bu dee New York daal ni fii képp ku fi ameel bor nit tey maa koy fayal mu génn donte ko alalam moo ca du jullit waaye loolu war nañu ñun jullit ñi loolu war nañu ñun jullit mooy wa taawanu alal birri wa taqwa laa alal ismi wal yàlla nee na ay jullit daal dana war a dimbalante ci mbaax dana war a dimbalante ci mbaax mooy képp ku la wan ni dama maa la gën a baax bu wan ni ko gënoo baax ak baax lañ war a jaayante ak baax dañ ko war a jaayante hal jazaa'ul insaani illal ihsaan ku la defar lu rafet. fekk fayoo ko lu rafet bul am jàmm waaye jullit bi nag ku la defal safaan bul ko fay safaan jullit dëgg du fay safaan waaw am na kuy déglu nag naa alxuraan may na la bu la jamee nga fay jam ga bu la dóoree nga fay dóor ga waaye déedéet ki munta baale lan ñu fay lu toll nan la tooñee waaye ku mën a baale moo gënal sunu borom Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni woote na waa Màkka lànk wuy si wuñ ko mu woote waa Tayif wuy si wuñ ko yàlla dana ko boo bëggee ma boole Tayif ak Màkka yëpp def ko dóom ku fa ne rek wàcc liggéey loola ngir nga mën koo gëm yàlla may na ko yonent bu ne te yonent bu yàlla yónni lu la may lu mu réeréy ci daraje sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la la ko mayee la in jaa bil ayaati taqaddamu fa naalu bikal ayati min si tafadduli loolu la Sëriñ Tuubaa wax nee na yenent bu yàlla may lam la may ma ngi la ko maye ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yenent bi saa la moom yàlla ba mu ne ko loo bëgg ci diggante Màkka ak Tayif gii woote nga gëmuñu la nangulul la te ku yow ku la nangulul nang bañulu la man yàlla la bañal kon damaa bëgg nga wax ma loo bëgg ci ñoom yenent bi saa sala ko yàlla ñoom day bañuñu ma dan maa xamul sun ma xamul dan bañ yàlla jéggal leen bu leen topp dara allahuma ixfir li xawmi wa antum laa taalamuuna yàlla jéggalal xeet bi ñoom dañoo xamul rek kon nga xam ni boo jekkoo war a mën a fayu li gën a diina mooy nga baale moom la Sëriñ Tuubaa def digganteem ma tubaab bi 11 novembre 1902 bi mu wàccee ci port bi yàlla ni ko loo bëgg sa digganteeg nasaraan yi nga xam ni jëloon sa bakkan rek leen tax a jóg rey la rek moo leen tax a jóg nettali lépp Sëriñ Tuubaa moom àggal sëñ Tuubaa ni ko yàlla lu mu ca mënti doon yow mi ma ci musal yow bokk na sa turu jéggalaa kon bi kon man sab jaamkat ci sa melokaanu tur woowu dama cay roy di jéggale en fawtu anil en ba i turan di wax ci man nafaahum li xayri sarmada las ak fam kon loolu lépp boo leen gisee ma leen ko jox ci misaal mooy ngir ñu weeru koor weeru jéggale la waaye weeru jéllale la jullit bi nga xam ne sax amee na la bor te mu leer na ni kii la amel mun naa fay ndax amul lu mu fayee jéggal ko bar bi ngir dayo weeru koor ndax weeru koor wi weeru suturaalante la weeru suturaalante la ibbi sa xol la weeru dellu suñu boroom la subhaanahu wa taala weeru xalaataat jaam yàlla yi la ñaata nit ñoo yor seeni compte milliards te koñ mënu dëkk nit a fay faatu deux mille cinq cent ko rey nga yaakaar yow moom yori milliard dëkk ca koñ ba est-ce que yaakaar nga ni bu ëllëgee doo lay ak suñu borom subhaanahu wa taala ci jëf jooju nga xam ne yow yaa ngi ko doon jëf kon ndax yàlla kat bu la dénkee alal dalaa séddale loo mooy alal jooju kat ëllëg dana laaj ba mu la ko joxee naka nga ko sàmmee yàlla bu la dénkee doom dana laaj ëllëg noo sàmmee doom ji yàlla bu la dénkee ak njur dana laaj jur yi sax ëllëg noo leen yore kon nag kullukum raayin wa kullukum mas'uulun an rihaayatihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ko ne sàmm la te bu ëllëgee la la yàlla dénkoon dana la laaj naka nga ko sàmmee moo xam yaay ni mu toppatooyee doom moo xam baay ni mu toppatooyee doom moo xam doom ni mu toppatee ndeyam ak baayam kon loolu nan ko bàyyi xel bu baax ci weeru koor wi xam ne nañ ci gën a delluwaat ci borom bi subhanahu wa gën a yokk nag suñu jàngu alxuraan dama ci insister nan ko def koor goo xam ni dañ ci profité nafaraale ci alxuraan. ku ci xamul woon sa diine fexe ko xam ndax loolu day baax ci jullit jullit boo xam ni lu génn rek ci wayu bees nga man ko waykat sax day génn way bu bees matul semaine nga tari ko te loolu jàng falaki faatiya falaki naasi ko gën a yomb waaye attanoo ko yàlla nag nim nim nim la jaral mooy mooy danga ko jàppee kon loolu moo nekkoon seen waxtaanu koor ci lu xew TV ngeen ànd ci seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu